asalaamaaleykum mbokk ñi seetaan tey ji euh, Prestige TV dellu si euh, seen émission bu mag bobu ñu tuddee leçon du jour tey di nak leçon du jour dafa am ben invité de marque ñu koy wax euh, monsieur Abdou Kane Mbodj Abdou Kane Mbodj moom mooy coordonnateur régional bu COSYDEP Abdou Kane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur Mbengue di rafetlu trop sama ñew tay ci Prestige Thiès bokk ak yow waxtan bi nga xamni ñoko ñoo ko ci leçon du jour. merci beaucoup donc fini ñuy commencé mooy d' ñu nga wax ñu Abdou Kane. Mbodj moy kan fan la jaar euh, fan nga ba excité ji nekk coordonnateur euh, COSYDEP. waaw jërëjëf monsieur bang en fait man meuna wax ni que daanaka Thiès la defee sama cursus scolaire yëpp. parce que mangi jangé école Clémenceau ex Clémenceau donc bi ma jogué j'ai fait le lycée Malick Sy ensuite ma def CFPS pour devenir instituteur. bon maintenant ci laa dem Casamance où j'ai fait 8 ans où j'ai fait donc 18 ans avant que may dem lycée Malick depuis 2013 voilà ma retraite donc euh, donc présentement je suis à la retraite maintenant par rapport à l'activité activité sur le plan de la société civile je suis membre du forum civil maintenant je coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique man lañ yebaloon foofu ci kuréel boobu bi ma demee aussi euh, gars dans un premier temps ma nekk adjoint qui nga xam ne kii et mooy Seydou Wane bi man donc ça fait six ans man maay coordinateur COSIDEP c'est mon mandat aussi mi ngi donc en octobre en octobre prochain bon très bien euh, donc euh, mais entre temps donc six ans c'est beaucoup mais bala ñuy ci ci bilan bi ci activité euh, d'abord il faut nous revenir sur COSIDEP, pour que nous ñi uh-huh. gën ko xam surtout euh, surtout signification bi ah cycle bi lan exactement après nga tekkil ñu waaw ci cycle bi uh-huh. muy coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique très bien coalition pourquoi nous avons une coalition parce que à mon un sommet de l'éducation Nous xam un bi de Dakar en 2000 sommet mondial la woon. boo xam ne bi ñëpp suivre nañ après sommet mondial bi donc partenaire éducation yi nekkoon Sénégal nous dañu bokkoon ñëw ñu ay invités. mais nous sommes ne syndicalistes yi parents d'élèves yi ONG toutes les associations de la société civile même la presse aussi été représentée. mais nous xool que nous avons tous le même discours. Nous ñu une éducation de qualité. ñu ne donc pourquoi donc mhm. que ñuy tasaare suñuy nous avons donc formé une coalition loolu moo la coalition donc la donc coalition bi mhm. de regrouper donc tous les acteurs de l'éducation Tout ce nga xam intervenir au niveau de l'éducation mhm. bokk nga parce parce que maintenant, mhm. tous les syndicats d'enseignants les nekk ci Sénégal sont membres de la coalition parce que man dans le bureau de ma nekk actuellement beaucoup ci kenn ak kenn organisation kenn bokk ceeg sa euh, organisation Donc, il y donc des syndicalistes des membres de la société civile des toutes les deux associations des parents d'élèves même la presse aussi est représentée par c'est une collègue ONG yëpp ñoom ñoo une coalition donc en synergie ça veut dire que donc avons une synergie mhm. nous comprenons les des mots bi que dañu mhm. pour engager wu mhm. en synergie donc pour l'éducation publique ça veut dire que donc école nous avons une war parce que l'État, comme nous nga ni en charge

la qualité de l'éducation parce que si nous sortons rek moi loolu nan la def ba qualité éducation bi nekk qualité bu gën. mais mais doguma la monsieur Mbodj mais dama gis ni que en fait c'est euh, euh école publique nga wax. Mhm. école publique. Mhm. te tey jii xam Sénégal euh, école privée fait am dollar trop dans le système donc cette qualité là aussi bi ngeen di wut bi xam aussi waa école privée di pourquoi ngeen def boobu dichotomie. je crois que il faut que nous aussi mën benn gis-gis wala benn en fait nous d'accord ci définition publique parce que xam nga école même bu fekkente da nga revisiter la constitution du Sénégal bo démé ci article 22 article 23 état bi mom lañ sas ak culture locale yi ñu jàngal bép doomu réew absolument parce que le droit est état la c'est-à-dire que comprenons comprendre public non, war ñu ko comprendre entre le privé enseignement privé parce que même ñi nga xam ni parce que bo xolé tay état bi fay subventionner le privé daf koy subventionner parce que loolu mooy rôle mi rôle donc dañ koy comprendre comme une action action publique la war action publique dañu ko comprendre noonu étatique voilà c'est ça c'est ça loo xam ne euh, en fait euh, quelque chose de régalien c'est-à-dire que l'homme est établi, état bi moo ko en charge moo donc pour l'éducation Mais dans les faits donc école publique comme école privée ñëpp ñoo ci biir parce que ñun avons une woon ci mission yu euh, waaw donc principale mission bi que nous am une éducation de qualité au Sénégal parce que constat que nga que la qualité de l'éducation au Sénégal a baissé d'année en année mhm. te loolu moo waral mhm. généraux en 1980 Nous sommes 34 ans après en 2014 mhm. il y a eu les assises de l'éducation et de la formation parce que les gens se sont rendus compte que la nga nous avons ni c'est lañ mébétoon ci généraux yi en 1980 loolu buñ ko xoolee mënuñu ko traduire la réalité c'est-à-dire que qualité éducation l'éducation loolu donc ñu né donc nañu togat en 2014 pour xol naka la ñuy def pour jooyanti njàng mi parce que xam ngeen lan la njàng mëna a andi ci réew. parce que lepp lu nga xam ne mooy dox ci mim réew. ci réew njàng bi moo koy moo koy sous ba taxna éducation bi bu fekkee ne dafa nek nekul éducation bo xamni bi éducation de qualité la. Mhm. li wóor ba wóor moy rew moomu ci suuf la jëm. te liñ ci seetlu je crois que lolu mën ci dugg. bien sûr bien sûr parce que en 2014. plus de 2000 personnes. nous avons ne que dañu avons ñëw indi seen ci plus de 500 millions détats dépensés pour l'OLA. mais bi ko au moins ay y commissions 7 commissions qui yi en 2014. Mhm. pour voir nan la nous joyantee njàngale mi. absolument mais liñ ci mujj def nous avons mhm. dañu 342 recommandations. Mhm avec 42 45 directives directives mm-hmm. Mm-hmm. mais nous, nous avons dit loolu pour ñu mën ko jëmmal mm-hmm. il faut mu am un conseil présidentiel le conseil présidentiel nous tenir ko avec le président de la République bien sûr Nous tenir donc en 2015 Si ñu ko en 2015 le président de la République nous pas ko wanee mooy que mbir mi yëpp dafa Maintenant, il faut que nous ayons une école pour tous parce que tey seetlu nañ ne xëy na nañ ci ñëwaat ci nous sommes dans des espaces scolaires et éducatifs. absolument donc école pour tous. Mm-hmm. ensuite nous avons une éducation de qualité. Mm-hmm. ensuite nous améliorer la gouvernance pour que nous soyons dans un espace stable. Mm-hmm. parce que tey li ñu seetlu. mooy que suñu système bi dafa nekkul système boo stable. parce que dafa bari des perturbations. et pourtant li nga wax le la est paquet résumé en termes de gestion. Mhm. de qualité et d'accès hein. Mhm. hein. et de pacification de l'espace scolaire. parce que tant que l'espace scolaire est pacifié ko. Mhm. améliorer la gouvernance scolaire. il wóor ba une éducation. de qualité maintenant maintenant hein. philosophie bi ci ah. tourner sur trois points bien sûr. maintenant moi, am maintenant recommandations. oui c'est vrai. Nous les 11 décisions présidentielles des assises d'éducation et de la formation Ça dit dire que 11 décisions La moitié c'est un rek benn boo moi, ne c'est parce que c'est Moi, que bu ba na ay scientifique mais beaucoup n'y ñun ñëpp littéraire littéraire dans n'importe quel lycée du Sénégal nga ñëw ci ay par exemple région bi nga xam ne moom lañ gën a xam. Mhm. amul benn école amul benn lycée. Mhm. boo xam ne bii am dix élèves mhm. en TS1. ou bien en en TS1 je veux dire. parce que mën nañu mat 25, bu ñu nekkee en première. en S1. mais c'est sûr que ñuy def TS1 bariwul ay cinq élèves lay nekk am na école am lycée yoo xam ne sax amuñu TS1 alors que bu njëkk ba. bu njëkk ba da nga daan gis un lycée avec trois terminal C boobu njëkk moom la ah, S1 terminal C. Mhm. mais c'est pour nga am extrêmement difficile. Mhm. alors que la première décision. Mhm. bi ñu jël ci que ñu réorienter système bi. vers les sciences. les mathématiques. le numérique. l'entrepreneuriat, mais dañ ci dellusiwaat léegi parce que nous, ñun. donc naa moon na rek la au moins décision extrêmement importante Nous, en tant que acteur de la société civile suñu rôle mooy lan wax naa la léegi benn rôle de veille. rôle de veille bi daf ñu permettre que ñun ñu xool le niveau d'exécution des décisions qui sont prises parce que loolu mooy rôle société civile. ça veut dire que dafay accompagner état daf koy accompagner pour joxe xalaatam joxe ay contributions par rapport à tout ce qui se fait dans le secteur de l'éducation. absolument moo tax ñun du ñu toog parce que tamit li nga xam ne di moom la ñuy wax moom la proposer dañ ko étayer n'est-ce pas par des documents yu wóor à partir donc d'enquêtes n'est-ce pas yoo xam ne def nañ ko. Mhm. li ñu mhm. d'ailleurs def nañ ko une activité boo xam ne bii moom la ñu ubbee suñu année bi année année scolaire bi au niveau euh, national. Mhm. et même au niveau donc des régions. parce que ma rappelé aussi que COSYDEP am 14 antennes régionales. bien sûr c'est-à-dire que faut dem ci Sénégal. di nga trouver benn organisation bu ñuy wax COSYDEP. buy toppatoo wàllu njàng di contribuer di wax joxe xalaatam ci li nga xam mooy njàng mooy njàng absolument ça donc il fallait que nous étudions benn rapport alternatif boo xam ne bii def nañ ko. ça parce que def def nañ ko ci ban base dañ ko defee ça veut dire que dafa am ay questionnaire yoo xam ne ñi posé nañ ko képp ku nga xam ne kii bokkoon nga ci assises yi nga xam ne acteur nga de l'éducation? c'est-à-dire que questionnaire dañ ko dañ ko yóbbu ci Sénégal gi c'était pour voir le niveau d'exécution le niveau de mise en œuvre décision présidentielle présidentielle mais li ñu seetlu que eggaguñu ci ci genn bien que fu melni ties fi nga xam tamit xam nañ ko ci première décision bi gis nañ ne que am na ay efforts au niveau des IA ak ci IFI ñong koy def pour xol naka lañu jappalé xalé yi pour que ñu orienté wu encore vers les mathématiques vers les sciences n'est-ce pas gis nga jigéen ñi li di defal mais ay miss matak etc mhm. donc concours yi organisé pour xale yi pour encourager mhm. xale yi ñu def mais li nga xam ni tam mën ko ci wax mhm. pourquoi le niveau des maths ex à ce niveau là parce que motivation enseignant yi dafa des tey jii ben prof mat mu dem statistique wala défi def defi leneen moo ko gën di parce que amul motivation ci parce que loolu mooy waral sax tey jii est-ce que am nañu enseignants de qualité yi ont nga xamni mo pour les mathématiques n'est-ce pas dans notre pays là lolu ñu né kat ñun ñi il faut que nous def ay efforts pour que conditions yëpp réunir pour que nous ayons d'excellents enseignants en mathématiques motivés pour nous former à parce que je sais que ni donc enseignant donc li ngay euh, c'est pas parce que da nga nekk dem mais c'est parce que aussi da nga jangale kat mhm. bo xam vraiment ma que monsieur Mbodj wax nako il a été d'abord enseignant ensuite nek lycée comme donc c'est quelqu'un qui est dans son élément mhm. monsieur Mbodj est-ce que le problème surtout ce problème de science là ce problème d'orientation de ces élèves là est-ce que c'est pas au niveau de la base que cela se trouve au niveau par exemple du préscolaire ou de l'élémentaire euh, est-ce que faut que nous

da ngay la petite enfance fille, gis enseignement élémentaire enseignement moyen enseignement secondaire université mais il y a une rupture Je vais vous donner un exemple rek li nga les répartitions harmonisées les phares au niveau élémentaire depuis 10 ans que de ville DEFCO. et là je crois que c'est l'occasion de remercier M. Tala pour les efforts qu'il nous consentir mhm. n'est-ce pas pour le développement n'est-ce pas pour la capacitation donc des enseignants à ce niveau-là mhm. ñun dem nañu toog lu dix ans bima ma lycée Malick Sy lay soog a que y a eu des problèmes parce que dafa am rupture entre li nga xam di moom am au niveau élémentaire ak li nga xam moy am niveau moyen et secondaire tay ji ñong ko bëgg appliquer au niveau secondaire mais day am ay jafé jafé am na ñoo xam ne tey d'accorduñ ci lolu parce que tay man bokku na ci ben kuréel bo xam bi waxtaan ñi waxtaan pour xol lan mo tax au niveau secondaire que mënuñu appliquer donc les phares là am na ay parce que nit ñi boolewuñu woon ci conception bi donc ñun il faut que njàng mi ñu am ci une vision holistique manam que ñu koy xalaatandoo lépp ci chaîne bi yépp mais waru ñuko rek def ay patch patch dafay indi jafe que impression que euh, l'éducation est mieux organisée au niveau de l'élémentaire qu'au niveau du moyen secondaire. parce que quand même. waaw parce que bu ni meun nañu wax parce que bu fekkente ni def na étape yépp war naa mën a xam exactement li nga xam ni moo ci xew. Les ma gis élémentaire mhm. en fait le sérieux de ma mhm. peut-être que le problème bi la formation des enseignants avons des enseignants de qualité sont au niveau élémentaire mhm. mais je sais que rigueur est am foofu en fait par rapport à l'échec, parce que les enseignants élémentaires enseignants yi possibilité élémentaire amuñu possibilité une classe parce que si vous ci cette classe vous ben waxtu di xale yi bi alors que vous faites ni dans le moyen et le secondaire dafay daal dit wute bon ñun buñu def analyse bi duñ ko tek rek peut-être ci njàng mi la baisse du niveau de l'enseignement au niveau du Sénégal duñ ko tek ci njàng mi parce que mën nañu tay wax ni que programme yi programme yi est-ce que c'est des programmes qui sont adaptés tay xalé yi dañ leen di surcharger ci lo xamni li peut-être que du leen amal sax njëriñ ëllëg mhm. lolu peut-être que ben ben mbir la mhm. mën nañ ne peut-être que langue nationale yi peut-être mhm. koo xam ki mi ngi jang ci lakku jambour est-ce que kooku la jang est-ce que dina ko dina ko amal njëriñ Mhm. parce que donc yomb yomb bi mi am bu daf koy jàng ci li nga la absolument boo ñun plaidoyer aussi mhm. pour que nous même ci biir assise aussi nekk na recommandation pour que nous revenir à nos langues nationales pour dire ci hmm. Il oh. y' a beaucoup de problèmes hein. mm-hmm. par rapport à l'orientation vers les sciences euh, pour la mm-hmm. formation des enseignants mm-hmm. euh, mais aussi mu am impacter sur la qualité des enseignements. la gestion la gestion des écoles. la gestion des fonds parce que tout le sait encore dans ce qui est déclaré l'État met beaucoup beaucoup d'argent au niveau de l'éducation mais en vérité il y euh, résultat qui yow lan moo expliqué loolu. waaw ñun gaa loolu gëstu nañ ci du bari parce que bu ñu xoolee état Sénégal alal ji muy dugal ci biir njàng mi ay milliards yu bare bari la. absolument parce que am na ñu daan wax sax ni 40 pour cent du budget la mais ñun gëstu yi nga xam ne def nañ ko ci en réalité c' est 25 virgule 8 pour cent du budget national moom la ñuy def ci njàngale mi mais boo xoolee sax budget bi li nga xam ne moo ci ëpp ay salaire lañ c'est-à-dire investissement donc investissement mhm. ci bari ci salaire yi la nga y a les partenaires financiers aussi mhm. partenaires yi nous ne la ñuy les dañuy dugal xaalis bari te war négliger tamit li la part des parents parents sommes yi ñu sonn lañu ci mhm. mais ba doyul nous bu ñu ressources def ko ci njàng mi te amuñu résultat laaj na il faut il faut que nit ñi tok nak laaj lan mo xew amna problème amna ño xamni ñi rew yo xamni yi li ñi def ci njàng mi moo gën a li Sénégal di def te pourtant résultat yi ñu am mo mo mo mo gën a baax résultat bac mi ngi tourner au niveau national autour de 35 pour cent mhm. nga ñëw Thiès par exemple au niveau de l'IA de Thiès c'est 37 nga ñëw ci CEP bi CEP bi nga xam ne résultat yi moo ci gënoon a baax. Mhm. n'est-ce pas mhm. tey ñoo ngi ci 51 virgule pour cent. une baisse. BFM bi aussi c'est la même chose. donc loolu il faut que nit ñi toogaat moo tax nit ñi sawartuñ ci école bi. Mhm. mais nag loolu surtout li nga xam ne moo ko gën a wàcce. mooy yi au niveau de l'enseignement public. tey boo xoolee par exemple résultat yi nga xam ne yi au niveau de Saint-Gabriel. mais exemple rek laay joxe. oui bien sûr mais c'est excellents résultats. Ils ont dépassé les 80% au niveau du bac. Mm. alors, pourquoi c'était pourtant, on comparer le niveau de formation des enseignants au niveau des écoles privées par rapport à ce nga nous au niveau du public mais si au niveau du public la formation bi degré motivation bi fa le gën a degré. le suis anecdote mm, mm-hmm. et surtout par rapport à quantum horaire parce que pour l'année, nous sommes au niveau du public quand on aurait dit, on aurait biaisé. C'est-à-dire que l'olu amoul dans l'enseignement privé. Bien sûr. C'est moi bien harit d'un tok la grève. est taré. Parce que on rappelle encore qu'on a eu presque 4 mois de grève. Il m'a dit, monsieur Mbouit, madame Rousse, je suis un peu rousse. Mon je me constate que l'école, 10 heures la femme, 10 heures de cours. Mhm. Mais si je fais 10 heures de cours dans le privé.

il est démontré aussi que 80 parce que l'on a étudié yu absolument mais 80 pour mhm. qualité enseignement bi mi dépend dépendre ci enseignants ci le ministre fan yee temps est passé. Mhm. Il na une benn école tabax nañu école boo xam ne bii dans le Saloum xaw dans le Sine. Mhm. école boo xam qui bii qui ngi déparé ci abri provisoire. CI ba troisième ils sont arrivés à faire 100 pour le problème c'est quoi. je crois que problème bi ci ñun la.

pour que nous puissions gën plus dem ci sur la question de la gestion au niveau régional euh, organiser nga fi euh, séance de formation à l'intention de cinq écoles de la région de ah, Thiès ah, ah. pour les capacités en leadership et en analyse budgétaire pas le choix sur leadership et analyse budgétaire Wow. toujours dans la gestion mhm. xam nga ñun dañu ne que gestion meilleure école une gestion transparente et rigoureuse une une école parce que ressources yi dugg ci école dafa bari waaye léegi bu fekkente ni benn nit rek moo koy gérer yaakaar naa ni loolu mën na bañ sotti parce que ressources yi dafa war am njeexital dafa war a positivement ci qualité enseignement bi loolu ñun loolu gëm parce que école bu la am ressources dafa def résultat normalement dafa war def résultat léegi nag ñu ne ñun il faut que ñu capacité au moins cinq dix am dix euh, membres du gouvernement scolaire ak 10 membres du comité de gestion qui école bu on a choisi 5 écoles dans la région mhm. on a choisi l'école Adoua de Thiès parce que nous, là c'est l'occasion aussi nous remercier Kinga nga son nouveau directeur là Ousmane remercier aussi surtout le grand Ablaï Ndiaye parce que Koko, moom moo njëkk daanaka ci implanter une école avec un gouvernement scolaire un précurseur waaw Ablaï, vraiment nous les lay remercier au nom de toute la communauté éducative mhm. ñu dem Ndiakhou dem Xombol dem Joal dem aussi ngaparo. donc il y a cinq écoles yoo xam ne dañu former donc sen gouvernement scolaire ak seen euh, comité de gestion qui analyse budgétaire ak ci leadership parce que ñom tay war nañ xam budget école bi naka lay démé li dugg ci école bi lan la mhm. naka lañ koy dépenser xaalis bi dugg naka lañ koy dépenser parce que lolu c'est important mhm. parce que tay di nga gis tay ci ci biir dëkk bi même juma gis na benn juma boo xam ne bii mhm pour transparence mhm. parce que leeral dafa baax mhm. il faut que nit ñi nekk ci biir école bi xam naka la ñuy gérer seen ressource école bi mhm. mais bu fekkente ne dara leeru ci école bi ay coow rek lay indi parce que boo gisee problème bien sûr bien sûr ñàkk leeral moo ko indi donc il faut que nit ñi de manière participative ñu mën a xool exactement naka la seen ressource école bi di demee et puis former aussi xale yi xale yi il faut que ñu former leen bu ñu former donc dañ nekk ñoo xam ne ñii dinañ mën a indi ay réforme ay je ne sais pas ay changement ci seen biir mhm. école mhm. te donc gouvernement mhm. scolaire kenn dootul wax sax li nga xam ne nii moom mooy njëriñam ci biir ci biir ci biir école yi parce que école bi la ci gën gouvernement scolaire déjà moo la gën ay résultats parce que eh. xale yi des fois dañu jël en charge n'est-ce pas yenn question yi nga xam ne moo leen di préoccupé très bien euh, donc euh, ñu gis na kan vraiment tout ça def ngeen ko mu nekk euh, ngeen def ko dans l'année vraiment ñu ngi leen communauté éducative bu Thiès yëpp di leen ci remercier di gis nañ sa taxawaay bu baax vraiment ci biir mais ñu ngi ngi dem école tëj ñu ngi dem vers une année. Uh-huh. Euh, certainement ku si def am na lu mu préparé par rapport ak euh, toujours par rapport à l'école est-ce que mën nga ci oui en fait li ñuy préparé dafay bari yenn saa d'abord première chose moi, contenu, tu coow yi am jamono yëpp ci wàllu éducation. grève yu bari yëpp yi nga affaire au chalisme, etc. donc dañu war mettre à profit vacances pour mën discuter ci bépp question boo xam ne dafa concerner école sénégalaise et même au niveau régional ñu xool naka la ñu def que partenaires yi acteurs yi ñu pour voir yan may facteurs yi nga entraver la bonne marche de l'école ñun li nga xam ne mën ci njëkk a gis d' abord que ubbi tey jàng tey loolu ñun ñoo lancé absolument C'est la COSIDEP qui a lancé en 2014 mm-hmm. à Dakar la ñu ko lancé mm-hmm. pour que quantum horaire bi ñu bañ ko biaiser. c'est à dire que le nombre d'heures que bi nga xam ne xale yi war nañ ko jàng ñu jàng ko normalement ensuite li ñu seetlu tey que les yu bari mu ñu këyitu juddu ils ne sont pas déclarés à la naissance Et maintenant ñun dañu jël génne benn concept bu bees bi ñuy wax nijaayu gox xam nga gis nañ fi bàjjenu gox bàjjenu gox yi mooy ñoo xam ne ñii dañuy jàppale jigéen ñi ci seen affaire yooyu quoi bon maintenant ñu ne noonu pourquoi pas ñu wut koo xam ne kii ci gox bi mooy seen nijaay koo xam ne kii na bu fekkenti ne amna ben naissance ci biir koñ bi mu mu jappalé leen ñu déclarer xalé parce que tay constaté nañ ne que plus de 62 des enfants des enfants ne sont pas déclarés à la naissance maintenant il faut que nous organiser benn forum pour nit ñi wax nañu wax ñu mhm. nan lañ mëna def mhm. yan stratégie yan mhm. moyens lañ mëna utiliser pour que xalé bu judd ci koñ ñu mëna ko déclarer parce que di nga gis sax tay ji bo ni bo démé ci IEF yi di nga gis né amna xalé xale yu bari def entrée en sixième amuñu kayit parce que buñu fekkonté ni toppoon nañu la nga xam ne ni moom la texte yi wax da nga wara déposer ben papier bulletin wala extrait de naissance

la fin octobre inshallah, ko def lan lañ parce que nous, dañu nous comme nous ko gouvernement scolaire il faut que nous képp ku nga xamné ki da nga yor alalu askan wi da nga war nga rendre compte acteurs rendre compte population parce que ci constitution bi wax nous ne que nga droit à l'information. Ah, mais Abdou je ma laaj est ce que nous sommes gars yi ñeme nañ ko audition. non def nañ ko fi. waaw na du problème pour am. Euh, non amuñu benn problème parce que def nañ ko fi en 2015. je me rappelle le 30 octobre 31 octobre 2015. avec euh, l'inspectrice inspectrice. Khadijatou Khadijatou nañ ko au niveau du conseil départemental acteurs sont ñëw c'est-à-dire que mu wax nañu lan mooy ressources et IA Ressources financières financière bi nee Le la am personnel bi lii il jafe a la am ci exécution budget bi. Mhm. résultat parce que tamit il faut que ñu xam lan mooy résultat académie bien sûr parce que population yi war analyse des résultats certainement di ko def. analyse des résultats déjà. Mhm. ñoo ngi ci collecte bi. Mhm. parce que fi mu nekk dans chaque IF danañ fay jël au hasard comme ça. trois écoles boo xam ne bii dañ koy jël résultat ci trois années yi c'est-à-dire en 2016 2017 2018. te ce c'est pas gratuit. parce que xam ngeen ni ngeen 2016 a été une année boo xam ne bu xaw a doy waar parce que il mhm. y a eu beaucoup de problèmes mhm. ay grèves yu bari amoon na fi mhm. amoon na ben stabilité est-ce que mais l'une ñu seetlu que année bi nga xam ne bi amoon na grève résultat am moo par rapport à 2017 bi nga xam ne bi kenn grèvewul woon ah, ah. ren ji aussi gis nga résultat yi ni mu demee donc il faut que ñu analyser ba xam exactement lan moo tax résultat yi di yéeg ak a mais en tout cas l'une qui ci mën wax moy que résultat yi nga Sénégal am na résultat yo xam yi baxna par rapport au en fait investissement bi. bi nga xamné bi état bi def na ko ci partenaires yi collectivités locales yi. ak parents d'élèves yi je crois que lolu du du résultat yu bax kon donc deug ngeen ko donc lolu moy en fait euh, donc euh, disons euh, la la conclusion de l'analyse de monsieur Abdou Kane Mbodj nga xamné mom moy coordonnateur régional bu COSYDEP fi ci Thiès donc résultat yi baxul et donc vraiment c'est toujours dommage xam naa ne ñoom comme ni mu ko waxee ils vont faire toutes les analyses nécessaires pour xam exactement lan mooy problème bi fan la affaire bi nekk lan la ñu war a mën a améliorer.

te ñun nag lii suñu warugar la parce que tey képp ku nga xam ne kii da nga nekk ci réew mi te njàng soxal la maanaam réew mi soxal la mbiru njàng dafa war a soxal. absolument ba tax na ñun ñu teggi suñu tànk ci loolu. Mhm. lépp lu nga xam ne lii gis nañ ko ci luy defar dinañ ci indi sunu participation lépp lu nga xam ne tamit lu yàq la tamit seet def ba nga xam ne bii du nekk. Mhm. en tout cas maa ngi leen di gërëm di leen sant. et peut-être xalaat ne que lii c'est une première. une première euh, vraiment saa yu ma ñu soxlaa rek. Mhm. daañu fi ñëw mën a gën a waxtaan ci li nga xam ne mooy les questions d'éducation. Mhm. parce que tey bu ñu sañoon tey duñ fi duñ am benn jafe-jafe. Mhm. sur le plan éducatif. absolument euh, merci beaucoup Abdou Kane donc le ma leen loolu dama la koy réitère xamal ni la que fii prestige sa kër la kër jàngalkat yi lépp loo xam ni waaw yaakaar nga ne war nga ko mën a communiquer war nga ko mën a bul xaar sax euh, prestige wala avons ce cœur là parce que ñun aussi c'est notre manière de soutenir l'éducation de notre pays ñu ngi jox daje benen yoon ci benen leçon euh, benen émission bu leçon du jour merci beaucoup